loolu yaakaar la moo tax ñu wóolu la Chers militants et sympathisants du mouvement And Liggéey chef de service administratif SA du centre des œuvres universitaires de Dakar COUD, un groupe WhatsApp bi nga xamanteni mo bolé membre And Liggéey ak Cheikh Sall yëpp ñoo leen di wo ci ab ndaje bu mag bu ñu amal samedi 28 septembre 2019 Kermos, Mons Gëcc ci ginnaw ngaay solos ndaje bobu nak mooy ñaax askan wi bu ñu mëna ñëw di adhéré Bok, wuy si mouvement bu am solo bi leen di ak yàlla rawatina sax waajal leen ci élection locale yu jëm ngir ñu xam taxawaayu mouvement bi ak njariñ li mu amal askan wi kon bu leen ko kenn nettali samedi lay doon 28 septembre bu 10h ci suba jotee ci Kër Maas nga ca Kajoor ca ginnaaw ngaay ñu ci woo militants yi sympathisants yi ak ñi nga xamante ni bëgg nañoo liggéey ak mouvement bu am solo bi leen di ànd liggéey ak seex Sall. man te chaque guru papa ma da koy wax ñu defee ko noonu pour groupe gi mën a baax mën a neex bi nañu ba